maa ngi ko créé en 2008 association suqali sama gox bon plateforme bi ëmb na beaucoup de structures ay groupement de femmes ay bàjjanu gox ay relais ay concert parce que xam nañ ni fii nga xamante ni fa lañ jëm bu ñu deful alerte mën nañu mettre en rade mm-hmm. te dañ fi tegoon benn loi parité président Abdoulaye Wade moo ko fi mettre en place. Mhm. Euh, gouvernement sortan ñëw def ci liggéey bu am solo jigéen ñi sant seen bopp ci instance yëpp. Mhm. mais ñu gis ni euh, gouvernement bi ñëw premier gouvernement ñoom bi ñu teg jigéen ñi dañ ci néew. Mhm. te ñu suñu rôle nekkul rek dañuy nekk ci société bi pour di mën a di def affaire xumbaay mumbaay ndax ji ak tàccal yooyu. <laughs> en dehors de politique yàlla a développement. Mm-hmm. te ci développement boobu nag si lañ sukkandiku. pour mën a wax ak suñu mbokk kilifa yi. Mm-hmm. pour ñu bàyyi xel jigéen ñi parce que li ñu ci gën a métti mooy bokk na ci ministère de la femme bi nga xamante ni supprimer nañ euh, euh, kii nañ ko. Mm-hmm. Euh, dindi nañ ko ndax ministère de la famille dëgg la famille moo ëmb lépp mais jigéen palaasam nekkul rek ci biir kër gi. nekku rek pour gérer xale yi tey instance boo dem jigéen ñi ñoo fa am taxawaay te liñ mën a gérer mu réussir moo moo ëpp solo kon donc ñun dañuy def alerte forme bi yaatu na tey boo duggee ci biir y a plus de vingt cinq mille vingt cinq membres te ñun ñëpp dañu takku taxaw pour ànd xeex suñu moomeel ci biir réew mi ñu ànd ci nag ak euh, soxna maam jaara donte defuñu ko loo xamante ni pour kii moo jiite kii ma parce que ki ñëw tey ak ki ñëw démb ñoom ñëpp ñoo yem lu ñu bokk di xeex daal mooy maanaam gouvernement bi ne fi na jox gëdd jigéen ñi na jox gëdd jigéen ñi hmm. parce que tamit dañu gis ni euh, vingt cinq ministre cinq secrétaire d'état yow nga jël quatre femmes. kese teg ci. kese man kese bi man. Oh, mi ngi noonu kese <laughs> léegi ñun suñu waxul day mel ni ko ñun suñu suñu taxawaay ci société bi. amul njëriñ amul njëriñ. moo tax ñu jub takku taxaw xam ni ñun droit bi ñu amoon ba léegi moom lañ fees. dañ ko bëgg a dañ ko bëgg a ndax kat ñoom ñi nga xamante ni ñoom ñoo yor nguur gi du ma ne li leen fal jigéen bokk si. kon nañu delloo ci xel bu baax a baax xam ne lépp luñ fi mën a teg. Mm-hmm. nañu dooleel jigéen ñi. Mm-hmm. te jël jigéen ñi def leen ci instance de décision yi. Mm-hmm. tout à loolu moom moo tax a jóg forme bi. te vraiment ñu ànd ci nag ak ñi ñu ci war a ànd ak ñëpp. yaakaar naa soxna Diarra dina ci ñëw ak euh, mémorandum bi nga xamante ni ñu ngi ciy liggéey. moom dina ci dikk. mais li ñu mën a wax daal mooy. maa ngi ci biir plateforme bi. mi mën a wax daal mooy. association de femmes laa yàqamti man <laughs> plateforme de femmes man mi ngi noonu ñun daal bëgguñu kuy néewal jigéen. déedéet parce que. Mhm. boo ne la développement rek. waaw ëmb na lépp. Mhm. tey boo demee ci tool yi. Mhm. nga dem ci bureau yi. sport bi santé bi foo dem jigéen ñaa ngi fa. secteur informel jaaykatu caaf bi sax. mais mooy secteur mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi ci plateforme bi ndax dañu bëgg mu sentir boppam ci li muy def. loolu moo tax nag ñu jug pour def alerte. Mhm. siiñ la nag. wane suñu bopp wane suñu bopp pour que ñoom ñu xam ni jigéen ñi nañ leen delloo seen place. ñun de nelaw ñu nelaw. gëmuñu ma ngi noonu.